posé benn question boo xamante ni da nga ci lim ñetti nit Pape Alé Niang journaliste la Pape Ndiaye journaliste la Coro Mandela wóoruma ndax animatrice la wala journaliste la wóoruma parce que xawma ko man maa ngi soog a xam Coro Mandela ci kaawu topp kaa musuma ko xam musuma ko gis su ma dajee woon ak moom xawma mais ñetti kaa yëpp ben bokku ci kaawu Pape Alé Niang maanaam dafa publier un document non rendu public éthique da koy tere déontologie da koy tere yoon da koy tere ñu jàpp ko ci mais nañu xam ne aussi position Pape Alé Niang bokkul ak position Thioro Mandela bokkul ak position Pape Ndiaye parce que tey dañu dem ba nga xamante ni ci biir milieu bi politique daf ci rax Pape Alé am na tur Pape Alé gis nañu défense yu mu doon défendre yépp xëy na lu ci ëpp da doon critiquer pouvoir suñu doon xool ci ka mu gën a far sax ka mu gën a far te moom assumé na ko Pastef là, muy Ousmane Sonko parce que beaucoup d'informations yu concerné Pastef moom am na ko en exclusivité donc ñu bëri dem nañu benn phénomène boo xamante ni surtout ci presse bi amul kenn koo xamante ni ñeme woon nga song wala wax dëgg ci Ousmane Sonko wala ci Pastef donte xam nga ko sax mais da ngay préférer abstenir lu ko waral parce que da ngay bañ commentaire yu négatif da ngay bañ ñu saaga la da ngay bañ waa Pastef taxaw di la dénigrer wala baña sétane sa information wala baña sétane seetaan contenu bi ngay def ci YouTube ba nga xamanteni nombre de vues yi nga ci bëggoon doo ko am lolu fuite de responsabilité la tay ñu bëri soutenir nañu pap Alé mais amna ñu bëri ci métier bi xam nañu pap Alé lu mu def déli la yoon da koy téré éthique da koy tere déontologie da koy téré mais téwut soutenir nañ ko suñu métier lan moo ñu war maanaam mooy solidaire képp kuñ ci mënte jàpp ñu solidaire ànd ak moom soutenir ko mais du tee nag duñ ko jox dëkk xam nga soutenir nit ak jox nit dëgg ça fait mën nga ne ñàkk nekk ci dëgg ma soutenir la mais du caagin que da nekk ci dëgg léegi nag Pape Alé Niang xëy na cadre politique la jëmoon na ci wàllu Pastef Ousmane Sonko te ñu bëri ñu ci bëggoon ñu gis seen bopp foog ñu créer organisation yooyu manifesté wu ko am na parfois ay organisation sitting yi ngay gis waxuma nag bu presse bi mais dafa am ñu nekk ci ginnaaw ay politiciens. ñooy nekk ci ginnaaw jox ko yenn association yi marche de fait que affaire bi am engouement engouement am tole ci bi justice aussi parfois suy day peuple pour baisser la tension sociale pour que jàmm le cas de Pape Ndiaye diffamation propos yoo xamante daf ko wax amu ci presse journalisme nanguwul diffamation nee la balaa ngay wax dara wala di bind dara na fekk nga am ay source yu leer wala nga am ay preuve yu leer donte diffamation sax soo amee preuve neexut a justifié wu Sénégal loi boobu ci war nañ ko xoolaat mais propos yi pap Alé Niang yëkkati si plateau télévision yëkkatiwu ko pour askan bi est-ce que yëkkatiwu ko pour faire plaisir à une personne parce qu'un un dossier pendant devant la justice un dossier boo xamante ni dañu incriminer deux personnes sénégalais muy Ousmane Sonko un leader politique bu bëgg def politique ak une simple euh, sénégalaise citoyenne muy Adji Sarr euh, PV am ci enquête am ci euh, ñu dem tribunal devant le juge ñu auditionné leen ñu am confrontation ñoom ñaar nangu ko nga dellu si en plein public nga taxaw nga ne magistrat ak diw ñoom ñoo ma ne Macky Sall moo ne nañu def nañu comploter li wala nañu wax li nañu wax li pour Daniel Ousmane Sonko loolu mën na indi guerre civile ci dëkk loolu mën na yee fitna ci dëkk parce que aussi Mame Less Camara ñu koy jaalewaat wat diko rendre hommage amna na lu mu waxoon kàddu booy yëkkati di ko ci doomu adama xolal bu baax so fa tégon sa papa wala sa yaay wala nga xol lan lay jur ci askan bi nga war ko wax mais c'était juste pour faire plaisir à une personne donc côté bobu aussi association yi xeyna pap Pape amul aura bi nga xamante pap Pape amnako amul gëdd bobu motax tax xëy na defuñu ay sitting ou bien autre chose le cas de Thioro Mandela si lañ ko jappé journalisme daf ko bannir ci luñ ko jàppee waxuma la nag am na wala amul parce que yoon moo ko jàpp voilà li tax yoon jàpp ko aussi yoon tëb tëbu rek jàpp Thioro Mandela balaa ñuy jàpp Thioro Mandela dañuy jàpp anakin Kiné Diop ki nga xamante ni mooy servo bi tey nag euh, gang su ñu jàppee cerveau servo bi ñu commencé def enquête di def enquête képp koo xamante ni tax nga ci dañ lay jàpp donc bi ñu jàppee Anna Kiné Diop ci téléphone Anna Kiné Diop la ñu gis ay message yoo xamante ni publier nañ ko ci page topp kaat ne ne tuuti kaay ma dee la di yàq ay deru doomu aadama di calomnier ay doomu aadama di saaga ay doomu aadama ay kilifa ay père de famille ñu am seen njaboot di dénigrer ay nit di sosal ay nit loolu dem ba yàq ay famille dem ba tas ay kër dem ba ay nit bëgg ci jël ay comprimé pour xaru ndaxte xajatuñu fu ñu dëkk amul lu gën a garaaw loolu ci àdduna kon képp koo xamante ne taqee nga ci loolu wala laalee nga ci loolu man Tange Tandian dama koy condamner jusqu'au dernier centime la presse sénégalaise aussi dafa bannir tey Facebook yooyu ngay créer war a joxe information alors que journaliste nekk fi nga jàngoo ko te jàngoo ko donc kooku suñ ko jàppee ci loolu tamit dañ koy soutenir luñ koy soutenir parce que ñoo bokk corps de métier bi mais du caagin ko aussi dañu war a dem taxaw xeex wala manifester wala nangam sangam pour ñu libérer ko parce que ba ñuy tooñ ay nit ñooñu di yàq ay deru nit ñooñu ñu bëri yàq nañ fi seen tur yàq fi seen der man mii j'ai été victime topp Top Cas doo gisee bërki démb wax na la ko amul animateur Wally Seck wax na la ko bii Bijou Ngoné wax na la ñun ay sénégalais lañu dañoo am ay doom am njaboot am famille am ñu ñu bëgg am ñu ñu bañ ba ñuy bind loolu si ñun di ko wax ci ñun est-ce que liñ doon wax dëgg la. su deug la sax dina d'accord mais amuñu sax droit bi ñom diko def tay journaliste amna droit gëstu ben information def ci révélation mais yow mi tok sa kër rek Tange Tandian neexuma xaaral ma sosal ko ci Facebook pour yak daram pour nit ñi bañ ko lolu c'est banni donc ci lolu lañ ko japp la justice nak est là pour régler le problème xam nga tay ñu porter plainte ñom ñoo gis ni que dañ leen togn ñooñu aussi foog ñu am nuñ leen dampé donc foofu rek laa ko gisee kon donc ñetti cas yi benn bokk ci soutien presse bi aussi presse bi tey su jógee di soutenir loolu le melni soutenir donc que la presse sénégalaise est en train de euh, de euh, favoriser euh, la médiocrité parce que si vous avez créé page Facebook wala dem di de nit ne su ma presse soutenir donc la presse n'a pas le droit de soutenir ces genres de cas là Il y ay soutien personnel nga Cap Manuel soutenir ko soutien wala nga woo ko téléphone wala woo jëkkëram maxu Mandela nga wax nga soutenir ko mais quant à tey presse bi di organiser ay manifestation donc nul n'est au-dessus de la loi on est des journalistes mais ça ne nous permet pas que lu ñu neex la ñuy wax wala lu ñu neex la ñuy def yàlla bi muy bindu alxuraan bindul ci téere alxuraan ni que journaliste su tooñee wala wax dara ñu jàpp ko dañu ko war a manifester pour ñu bàyyi ko amul kuñ ko bindal ci aduna ñun ak ñun ñi ñoo yem ni nit ñi di tooñee ñi leen di jàpp donc ñun suñu tooñee tegg yoon dañuy jàpp yoon teg ci ñun lu mu war a teg ci ñun